seytaane rajim asalaamaaleykum mbokk internet yi Saint Louis TV maa ngi leen di bu baax a baax di leen euh, déwanati di leen wax ni joyeux Noël di ndokkale ñëpp ñi nga xamante ni dugg nañu ci at mu bees mi di wax ni yal na yàlla def deux mille deux mille vingt bi ñu génn mu ànd ak mbas bi yóbbaale ko ak jàmm ak salaam mille vingt et bi nekk at boo xamante ni moo gën ci at bi ndax gis ngeen deux mille vingt bi li fi jàll yëpp tarkal macha allah bëri na ba tey rek euh, ba tax na tey ñu ñëw seet si euh, fii nii ñëw seen benn artiste bu mag boo xamante ni kenn dootu ko laajteeti ci diggu ndax mu daan def chaque année 31 décembre ngeen daan ko gis mu nekk place ab Ablaye wadd di fa bégal ay fansam ay am di jàmmam ba tax na tey waa Saint-Louis TV daagu nank ñëw ba ci këram seet si ka muy Mbaye Ndiaye Tilala Mbaye Ndiaye Tilala buñ ko waxee dootuñu ko laajteeti ci diggu ndaax ba tax na mbay maa ngi lay nuyu bu baax a baax. di la wax ni waa ndax ak àdduna ñi ngi lay bàyyi xel mbokk internet yëpp a ngi lay seetaan mbay noo def. waaw maa ngi fi sista euh, gannaaw bu nu jullee ci yàlla sant sangam bu tedd ba Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Euh, maa ngi wax asalaamaaleykum àdduna bi. Mhm. maa ngi wax asalaamaaleykum Sénégal. maa ngi wax asalaamaaleykum le monde entier à travers Saint-Louis TV. ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy yéege niveau yi ba ku nekk di ko gis. Mhm. Euh, di sant bu baax a baax euh, di nuy sénégalais yi di leen masawu ndax indépendance dafa neex. Mhm. su yàlla dogalee nag ñu dem ba euh, am lu tax indépendance yi amatul. muy jeex ci at mi ñuy dugg ci at mu bees mhm. dañuy njëkk ñaan yàlla sunu borom lii ñu dund ci deux mille vingt bi yàlla bu ñu ko dund deux mille vingt et un eh, li ñuy fas yéene dund ci deux mille vingt et un bi yàlla na ñu dàqal ba nu fàtte deux mille vingt bi mhm. yàlla may nu wér mhm. defal nu gudd fan defal ko askan wi. te ji gis nañu deux mille vingt bi métti na trop ci artistes yi ah. deux mille vingt et un mille vingt bi métti woon na trop ci artistes yi. Mhm. mbay ñu gis ni première vague jaaroon na fi ni koy waxee. première vague jaaroon na fi artistes yi seen bunt yëpp tëju. ñu dem ba ci yàgg ubbiwaat ka ngeen nekk seen activité. Mhm. delluwaat ñu tëjaat ka mbay nan mhm. ngeen dundee loolu. waaw loolu ni ñu ko dundee metti na. Mhm. parce que ku ne xam na ni euh, musicien. artiste chanteur lu mu mën a am di def métier moo ko gënal. mais tey su demee ba mënatul def métier comme ni mu ko war a defee. Euh, dafay daal di métti ci moom. dafay daal di métti ci moom. première vague bi bu mu ñëwee gis nga artistes yi ñoo njëkk a jóg ñii way nañu ñii taasu nañu def nañu lu ne ah sensibiliser nañu eh, vraiment ba yàlla dogal eh, feebar bi xawoon sax wàññeeku mais mu ñëwaat ak deuxième vague bi comme on dit mu nekk loo xamante ni lu metti la lu nu lu nu lu nu téye la lu nu tànk la daal noonu ko yàlla dàqal ndax période bi ñu toll ni 31 décembre mhm. eh, fans yi ak soppe yi mhm daan naa ko and ak euh, le maire mhm. Cheikh mohamed Mansour fay mhm. ñu promouvoir les artistes locaux de Saint-Louis mhm. yi nga xamanteni ni ñoo dëkk ci dëkk bi euh, donc suñu demee nag ba loolu am lu ndaw lu ñu ko pour ñu def ko euh, dafay daal di metti ci suñu liggéey mbas mi daal baare na leen waaw mbas daal mbas mbas mbas mi daal mbas waa mbay ba tax na tey jii mbay njaay tilaala dañ koy dégg fu nekk mhm. mbay njaay tilaala doonatul mbay njaay tilaala wu ndar mhm. doonatul mbay njaay tilaala boo xamante ni mhm. Dakar sax la war a yam parce que heure bii nii waroon na la fekk ñu lay dégg fu sori waroon na nu fekk mbay njaay tilaala ñu koy dégg foo xamante Mm-hmm. mën naa ni comme ñoom Wally sekk fa leen di dégg ak ñoom mm-hmm. Sidi Diop ak ñeneen ak mm-hmm. ñeneen tey fi tey Mbaye Ndiaye Tilala toog Ndar ni moom du génn Ndar mbay lan nga gis Ndar ba ni doo génn Ndar ak artistes yi nga xamante ni ñi ngi génn Ndar yow moor nga mën a def ni ñoom wala mais mais mais sax mm. artistes génn Ndar ñu ngi dellu si waat Ndar ñu ngi dellu si waat Ndar lan moo tax waaw parce que euh, nit ki da ngay wut base donc soo amee base. Mhm. ba sa base dëgër. Mhm. doo ko dem. Mhm. parce que Al sax boo ko jàngee te doo ko nafar bu yàggee dootoo xamati donc euh, te itam li tax moo toog ndar mooy man fi laa dëkk. Euh, Dakar def Dakar premier album bi muy génn ba deuxième album di ngi Dakar. doon dund loo xamante ne lu lu lu metti la nag. kon yow ah, nekkoon nga Dakar nekkoon Dakar laa jógee. xanaa da nga dafa dafa am lu da da nga gis loo xamante ne dafa jar nga dellu si waat wala Dakar da nga fa daj lu jar nga ni pëccëg ñibbi si. non c'est que xam nga artiste produire rek la bëgg. Mhm. di produire di jouer. Mhm. donc soo demee ba yow fi nga nekk. heure boo jouer da nga génn dem ci ay soirée bëf. Mhm. donc foofu y a problème. te dafa am am loo war a fondé. war a former groupe. war a liggéey ak sa group ba mu lay permettre ngay génn ndar di dem Dakar ak faneen ak faneen donc loolu laa doon liggéey si. Mhm. doon ko def si ak ndar te yàlla dogal na ci kàttanu suñu borom ndar ndar yi nangul nan ma ko. kon léegi at mu bees bi ñu jëm. Mhm. dañuy ñaan yàlla rek gaa yi puus. Mm-hmm. ñu dem ñu dem comme ni ngeen ko bëggee. sant sant yàlla mbay comme mm-hmm. dem nga Dakar. Mm-hmm. gis nga li tax nga daw si waa dellu ci ndar. ba tey jii ndar duñ ko waxati te tudd nu Mbaye Ndiaye Tilala. munu nekk munu tudd benn artiste te duñ ni Mbaye Ndiaye Tilala. mbay say digganteeg say fans. yow say fans lan nga bëgg si ñoom ak lan tey jii nga nara say fans ak surtout nii ñu toogee corona bi nii. corona bi nii gis nañ la doon nga def ay répétition génnoo génn def nga def ay répétition nekk si jàkkaarloo yi mhm. Hmm? Mhm. tey say fan sa am fu lay xaar foo xamante ni yow boogo leen fa mhm. euh, su ma diggante ak fans yi euh, li may xaar ci ñoom mooy li may wan te loolu moo may dolli loolu moo may yokk courage loolu mooy tax su ma waroon bàyyi du ma bàyyi loolu moo tax su ma waroon yox yoxi du ma yox yoxi

ba tax tey ñu nekk nga nekk ci seen biir xol. Mhm. ba bu ne Mbaye Ndiaye Tilala ñëpp défilé wu. Mhm. loolu vraiment lu may neex la. waaw sant yàlla parce que dafa mel ni ndax Mbaye Ndiaye Tilala rek moo fi. Ah, artiste waaw mais parce que te gis nañ fi ay artistes yu bëri artistes yoo xamante ne. parce que Mbaye Ndiaye moo liggéey loolu ci Ndar. Mbaye Ndiaye da koy dégg ci jakartaay di ko dégg ci sareet yi di ko dégg ci ci ci cek cek yi. kon mën na ni sa sa sa sa sa kon mën na ni da nga da nga rampe. Ah. da nga rampe ni naan dangay ngay rampe da nga ba yegg fii nii. waaw dama rampe ba yegg mm. fii dama rampe ba dama liggéey ba yegg si fii ma liggéey fii ma toll nii tey. Mm-hmm. waaw xam boo daan liggéey di luye ay matériel mm. wala ngay liggéey bëgg benn affaire mënuloo ko am. Mm. Eh, dafay metti mais tey soo dee rampé di góorgóorlu du liggéey ba tey si sa wàllu liggéey loo ci soxla boo geesoo gis ko da sant yàlla wax alhamdulilah rabbi alamin mais nag loolu dara waralu ko lu dul yi ak ñi ma bëgg ñi may produit di jël seen xaalis di ma fay di ma may encore seen xaalis man waruma waruma mel nen ci seen kaw c'est pourquoi gars yi la modestie de Mbaye Ndiaye Tilala xaw leen jaaxal tuuti ñoom dañu comprendre man li may liggéey wala li may def sama aar la boo xamante ni lu ma respecté la mhm. lu ma jox cër la ndax fu ma àgg wala fu may dégg wala lu ma am moom la mhm. mais après loolu bu weesoo mhm. Mbaye Ndiaye Tilala nit rek la ku dëkk ci dëkk bi juddoo ci dëkk bi màgg ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi mm-hmm. donc war a def yi nit ñi di def ci dëkk bi mm-hmm. fi ñu teg nii danu bëgg ma chair mm-hmm. bëgg nañ kenn dootuma gis bëgg nañ mu yokku fi ñu teg seen loxo buñ ko bàyyi incha allah buñ ko bàyyiwul danañ ma dégg faneen ak faneen te bu ma amatul jot vraiment di ndax lañ may namm de yàlla baax na mais Mbaye ant fans ak ay ak fans entre fans ak fans mbay tey est-ce que doo gis ni xam ne mbay Ndiaye mii kat ay fansam bëgg nañ ko nga gis say nit xam nga bëgg dafa metti nga gis nit ku la bëgg comme par exemple man ma ñëw bëgg Mbaye Ndiaye Tilala mais Mbaye Ndiaye parce que am na ñoo xamante ne dañ naan Mbaye Ndiaye yëgul nit ñi naan Mbaye Ndiaye dafa yëg boppam <coughs> fans nin koy waxee nit da mën say nit est-ce que say fans yow tey jii nit bu taxawee ni Mbaye Ndiaye mii dama ko bëgg wala say fans yaa ngi leen téye ni nga leen war a téye ak yooyu ah fans yi téye leen ma leen war a téye moo tax ñuy yokk. yaa ngi gis say fans a ngi yokk. fans yaa ngi yokk bu baax a baax. yow say fans Ndar la yam wala partout. partout partout daal monde. mais Mbaye ma defe ne Mbaye Ndar rek lañ koy dégg. <laughs> Mbaye Ndiaye pour ma xamal la ci jamono fii. Mhm. waa Ndakaaru dañu toog bàyyi ko xel. ndeysaan. lépp lu muy defar fii rek. Mhm. wala di ko saawoon rek. Nyom nyi wëlbati ko di ko dund kon seen benn nopp mi ngi ndar xam nañ ne artiste bi mi ngi ndar mais comme on dit mm-hmm. nit ku nekk ak fa la yàlla di mm-hmm. nit ku nekk ak fa nga war a ne man ndar laa war a ne samay fans mm-hmm. taximaan yi la woon yokk na war gaynde yi yokk borom bis yi <laughs> borom jakartaay macha allah kon xam ni samay fans ñi ngi ngi ngi ah. itam nak li tax ñuy yokk dama leen di bégal. te bu ma leen gisee damay saafoonteeg ñoom. Mm-hmm. man samay oto vert bi di jóg. bu may wàcc fen du ma wàcce vert yi. du ma du ma tëj du ma def dara loolu moom dëgg la loolu moom ñun ñëpp xam nañ si dara parce que Mbaye Ndiaye mm-hmm. Tila la la. waaw mbubb bi muy sol. Mm-hmm. buy nekk devant l'écran ak mbubb bi muy sol. bu nekkee ci biir dëkk bi. bokkul. bële da koy respecté bii. nga dal ko ak say fans ak say xarit ànd ak ñoom il faut am na solo loolu am na solo mbay ñu ñëw na ci nga xamante ni mooy cappaandaw gi ñu gis fan yi nii am na lu fiy def buzz nga wéy fi aayoo ne ne ñu gis waa Facebook a ngi wax waa Twitter waa waa waa internet yi ah ñëpp a ngi fan si ñëpp ngi coow ñëpp a ngi kaas pourquoi mbay génnul pourquoi mbay génnul wax ci mbay ñu war ko dégg déggul mbay dafa yeb ay fansam wala dara mbay ñu gis ñu nga wéy fii aayoon nee mu def buzz. mu def buzz ñi xamul woon Mbaye Ndiaye xam ka ñi xamoon Mbaye Ndiaye xameel bi gën a yokku mhm. mbay affaire bi def buzz. Mhm. tey ñu xëy suba gis benn art gis benn euh, musicien. Mhm. muy Demba gise woy fi aayoo bébé aayoo bébé boobu ñu xam ne aayoo nee na bi yëfu Mbaye Ndiaye la tey piraan nan la loolu laa mën a wax Mhm. say fang sa ngay kaas di joy lan moo tax mbay génnul wala wax ci lii nii et tout waaye lan ngay xaar pour wax ci loolu. loolu du ma si wax. lu tax. déedéet parce que xam man ni may dundee mooy. Euh, mais non dogu ma mm. da nga daan gis nit ñuy nangu sa way ngay dem di porte plainte di def mais. <laughs> da nga mais mais mais mais man. <laughs> Mhm. du ma du ma wax ci loolu. Mhm. parce que xam nga nit. lenn li yow yaa ko moom. li ci des sa genn wàll ñoo ko moom. te yow boo jëlee sam xelu bopp doxal li nga war a doxal say genn wàllu woola wax la li nga war a doxal nga xool doxalin muy benn doxalin doxalin boobu rek lay doon yaa ngi may wax léegi ci biir wax est-ce que tey jii moom bu ñëwoon yow tey jii bu yow boo ñëwoon loolu du ma wax est-ce que dina est-ce que tamit dina ka nangu man loolu xam nga lu tax duma ko wax du ma ko wax ayo nene non ayo nene ayo nene fu ko waay dégg ci Sénégal wala ci àdduna bi sa xel dem ci Mbaye Ndiaye. Mbaye Ndiaye Tilala lan moo tax génnoo la. ki ko way aayoon na ne fu mu dëkk ki way aayoon na ne fu mu dëkk ndar gii la dëkk. waaw léegi ki ko wayaat <laughs> noonu laay demee fu ne nag ci àdduna bi fu ne leen may woo. mais Mbaye Mbaye naan maa ko way way ko sama xarit Cheikh Sarr ak jabaram mu jig la ah, woy ko Alima Ndione di ñaan yàlla rek nag di sant ndax euh, gis nga nit mhm. euh, sooy def dara ba ñu di la roy ci li ngay def mhm. wala ngay woy dara ba ñu lay rey ci li ngay way mm-hmm. kooku da nga koy sant yàlla sant ko suñu borom xam ni Sénégal bëri na ay woykat mm-hmm. te bu nu woyee kenn jëlul seen way kenn wayaatul seen way mm-hmm. donc man su ma defee benn petit aayo nen rek te xolo moo gën tuuti ci li ma war a way ndax samay fans ñi ngi gën a yokk maa ngi leen di gën a xam dama xam ni dañu war a gën a bég dama leen di gën a bégal ci kàttanu suñu borom mais damay ñaan yàlla rek euh, yàlla dolli nu euh, Euh, te defal lu ñu bëgg. amiin amiin ah, loolu su amee réew mi dana neex. Euh, fan si danañ kontaan. Mm-hmm. média yi danañ dox. Mm-hmm. ndax xam nga lépp ci jàmm la xam. Mm-hmm. média yi ñoom dañuy tourner tout le temps ci ay manifestation te manifestation yi ngeen dem yu ci ëpp ay manifestation la yoo xamante ni lu yuy rassembler la. donc suñu demee ba rassembler amatul. Mhm. dafay dafay métti ah. waaw mbay mbay mhm. mbay kontaan nu si question yi ba mhm. tax euh, ñu ngi lay béggee bu baax. di wax ak at mu bees bi yal si yàlla def xéewal. mbay lan ngay may say fans aayoo nene bi dafa mel ne ni. daa lëmbee ndar euh. ba tax na tey jii ku bëgg a yëkkati aayoo nene te li nga si def kenn dafa ko si dëgg neexul. mbay na dana bëggoon nga yëkkati may say fans <laughs> dara. wala ci at mu bees bi ñuy dugg. muy 2021 bi di wax yal na yàlla def xéewal gu saawaan baawaan. bu naree bu naree mel ni 2020 bi moom <laughs> tarkaalu macha allah kenn dootu wax donc li may li may tëjee waaw mooy di sant yàlla juddu ci Seydina Mouhamed ñaanal sama yaay Ndeye Mbaye mu yàgg fi te wér yàlla bàyyi ma ak sama soxna mm-hmm. Diouf ma ñoo ko bàyyi mm-hmm. mu yàgg fi moom it te wér mm-hmm. bàyyi ma ko machine rythme ñi nga xamante ni ñoo nekk autour de Mbaye Ndiaye Tilala machine rythme euh, musiciens yi nga xamante ni ñoo nekk ci gannaaw Mbaye Ndiaye Tilala nga xamante ni heure bu neexee wala mu riir rek ñoom ñoo jàppale Tilala dooleel ko mm-hmm. ñoo aw ma seen fay euh, maa ngi ñaan nag euh, suma manager bu bees bi nga xamante ni moom laa jox lenge yi mm-hmm. muy sama rak un petit frère à moi Cheikh Niang euh, yàlla yombalal ko yoon bi mm-hmm. ba fi mu bëgg jëma Mbaye Ndiaye Tilala mu mu jëmee ko fa waaw ndax ku la rombale say mbokk ci ay mbokkam la lay mhm. donc kon seen nous dans c'est la famille donc euh, maa ngi koy ñaanal moom itam yoon bi mu attaqué song ko mu oyof ci moom euh, di ñaanal Sénégal yëpp di leen wax ni leen maa ngi leen di souhaiter

waaye nag. sunu borom nanu teggil feebar bi. amiin amiin amiin amiin man de man nii dama leen. dama leen ah. bay jooyee. wuy taawoo taawoo. wuy taawoo waxal taa. Mhm. waaw aayooneen. di di di sax. assuré les benn 2021. ndeysaan ndeysaan ah mbokk internet yi gis ngeen lii la woon muy temps bu gàtt mais am na solo si sa Binta ngeen doon àndal ak Mbaye Ndiaye Tilala doomu ndaaf bi macha allah ah di gërëm ñëpp yéen ñu ñuy seetaan yéen ñu ñuy bàyyi xel di gërëm tamit waa Saint-Louis TV bu baax a baax suñu directeur bi Cheikh ak suñu caméraman yi ñaawul yi Koulim Dioum def ngeen lépp macha allah di leen wax ne bonne heureuse année rek ah 2021 bi yàlla doon at bu gën ci at yi yàlla wàcc fi xéewal gu saawaan baawaan ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp dina wax ne bi ju ba beneen